ñoo jublu ci njeextalu foiru ramadan am ñoo xamante seni bamba maase na am ñeneen ñi nga xam ni nee nañu des na ba tey te ñuy dundee yaakaar foiru koor gi moom xaw na des tuuti quoi waaw comme nag lim dajeeg weer bi sori la am déet quoi xëy na fin bi dernier jour yi xëy mu tane quoi le soir avant ay 17 heures 14 heures la clientèle di ñëw par benn benn par rapport ak fiara bi foire bi mu ngi des ay 3 jours 4 jours moom à notre niveau ñu ngi wax alhamdulilah parce que produit yi ñu fi indi woon yëpp euh, écoulé nañ ko donc li ñu dese fii bariwul. ay sirop la ñu yoroon ay poudre de baobab poudre de kénkéliba poudre de bissap araw caakiri euh, tàndarma moom lañ fi yoroon. kaasu ndékki ñu ngi koy jaayee 600 bololaahi ñu ngi koy jaayee 700.

ñu ngi koy jaayee 4000 wañi nañ prix yi. fii moom suñu prix wàññi nañ ko bu baax a baax a baax fii na waaw dañ ko wàññi bu baax a baax nag noo bëgg client yi jënd lu am solo quoi comme ku nekk boo ñëwee rek ñu mën la jaay li nga soxla. on peut pas faire aussi au-delà de, de, de, du prix de revient. On peut peut-être même donner parfois au prix de revient, pourvu qu'on trouve de l'argent pour payer les lois, pour la, la, la, la location du stand. ñenn ñi dem bay laaj tamit ñu yokkal leen ay fan rek ci foire bi. am na ñoo xamante ne jaay nañ am na ñoo xamante ne jaayuñ donc buñ ko prolongé aussi je pense que yàqul dara. di ñaan pour ñu mayaat ñu une semaine na xëy na koor gi tam temps bi moo gàtt ndax boo bëggee wàcc bureau à 16h 15h bëgg a ñëw fii def sa shopping bëgg a dellu defar ndogu day gàtt daal jàpp nañ na tam xëy na. koor gi ndax parfois weekend bi sax dina tane mais jàpp nañ ne xëy na koor gi moo tax temps bi gàtt nit ñi amuñu lii. yokk yëgle bi tamit nekk na lu soxal yenn exposant yi ngir rek yombal liggéey bi rawatina exposant yi nga xam ne bitim réew lañ jóge froid de ramadan bi jeex na ba pare pour l'autre pour ay années yu ñëwaat tam aussi pour ñu jàppale tam ni étranger surtout étranger yu jógee dëkk ba dëkk pass seen vol aussi ñëw pour am yaakaar ni ñoom. dinañu mën a dinañu mën a dinañu mën a gis seen bopp fii Sénégal et tout ñun sa waxuñu ñun sénégalais ñu mais étrangers aussi. tur ñaax leen rek comme ñun ay exposants lañ te dañuy ñëw ci foire bi chaque année foire bu tëgg fii ci biir Suisse dañuy ñëw ñu ngi jóge woon ci Fiara bi jóge ci Fidaat bi ñëwaat fii ñu proposé ñu ñëwaat di dundee yaakaar pour ñu gën ñoo defal publicité bi mu gën a bare comme ni muy amee ci Fidaat bi am ci Fiara bi. publicité foire de Ramadan bi gëna baré bare ndax loo gis ndoorteel la té ñaan na yalla banan ay 20 e édition wala 23e édition té loolu lepp ci publicité bi la mëna am. am ñu gis ne tamit mën nañu indi ciopiti ci walu organisation foire bi. la prochaine fois man bu doon sama sago buñ koy def dañ koy def ci diggu koor gi ak fin ki fin wu koor gi commencement benen mois bi xamné nit ñi dinañ ciof fi ciof fi Nah, après koor la nit ñi di gëna am li te comme foire de ramadan la nañ ko dugg ci koor gi rek def ko ci fin wu feulé su ko défé ñi amul jot ci koor gi dinañ mëna ñëw après koor gi wax fa dëgg bagage yu rafet fi am. lepp nga fi dal ay kaas ndéggikaay ay bol yëpp nga fi dal loolu loo soxla si vaisselle mi ci bir bu dé ci walu ak njaay am na ñu ci gis seen yi bop am ñeneen ñoo xamanteni das na ci ñoom ci walu pajum bët ak bëñ mom nit ñi fa tew takku dañu lool. bi moy ñaarelu yoon ñuy liggéey ak euh, la direction générale bu CICES e, euh, di profiter de l'occasion pour remercier le directeur général euh, Cheikh Ndiaye bi nga xamné ne ñëw ak idée contacter ñu pour ñu ñëw dans le cadre de li ñuy wax responsabilité sociétale de l'entreprise pour que ñu ñëw mëna dimbali nit ñi dimbali askan wi ci wéru koor bi mu dooree ba le premier ba léegi ñu ngi ci près de 2000 euh, patients yoo xam ne yii euh, def nañ ko fii ci ñi nga xam ne euh, chaque jour mun naa calculer en moyenne presque lu tolloog 200 patients yoo xam ne dinañu leen consulter ci bët. buñ la consulter ba noppi seet na yow mii kat war ngaa ami lunette ñu xool lunette bi nga xam ne ci consultation bi mooy doon ordonnance bi ñu jox la ko mu nekk ci anam yu yu yomb. bis bu yàlla sàkk ñuy gën a dem di jege ci njeexantal bi nit ñi di gën a bari nit ñi gis nga nu nu baree fii ci suba dañuy fees dell fii dangay ñëw fekk leen sax ñu toog